wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu ci guddi gi di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel di leen balaaxu bu baax te di leen baal di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moo amul njéggal te képp ku mu jéggal nga am ko yàlla na nu boole jéggal ci barkeb sëriñ Tuubaa ak Cheikh Rahima Fall Lamp barkeb sëriñ Mor Janjar nuyoo yooyu nag ak ziyaar yi ñoo ngi ciy jiital Cheikh mën taxa tey ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp noonu yi la ni ñaanale serigne amni modou menda khalifatu mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp babul murdi na sabaram yagal ko te wéral ko ak mboolem njabootu mam Cheikh Ibrahima Fall gep wa serigne Mouhamadou Dia amisa yi xalifab sëriñ Mor Janjar ak mboolem njabootu serigne mordian jar gep di nuyu bu baakha a baax te ziyara fi ci jotay bi sunu way jur wii fi tewde soxna Adama Dia moom Serigne Mor Janjar noo ngi koy jox wàccuwaayam di ko ñaanal tey ñaan sun borom dolli ko tawféex bu baax a baax ci barkeb Serigne Mor Janjar ak mbooleem sa doom yi nga nekkal yépp ak njabootuk Serigne Mor gépp noo ngi nuyu bu baax a baax nag tey ziyaara Serigne Saliou mii nga xam ne yàlla dogal na moo wàcc kàddoom léegi ja di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam tey am mbégte lool ci jëmmam ak i kàddoom ak soññee bi bu baax a baax a baax a baax ak ñaan yi jërëjëf yal na yàlla dolli la tawfeex te dolli la sutura bu baax ci barke Serigne Touba ak Cheikh Rahim Fall Lamp barkeb Cheikh Mor Janjar noonee la nuy nuyool jëmm jooji nga feggool muy sunub xalifa di Serigne Modou Dia moom Serigne Mamor comme ni nga ko waxee ñaan sun borom fekk fana moom it te dolli suturaam ak i xéwalam barkeb Cheikh ak Serigne Mor Janjar ginnaaw ci loolu nag noo ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ak fu waay mën a bawoo ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw ci dëkk yi ak gan yi noo ngi lay nuyu di la jox kem wàcc waay wi yàlla doxale sunu diggante ak yow su jaadu woon wala sunu ko manoon dinañ lim kenn par kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñi dëkk ci dëkk bi ak gan ñi wuy si ñépp dina leen lim ndax kenn ku si ne xam na la xam gu wér te gis nan la waaye nag yàlla sunu borom mi nga xam ni nu gën a jege sunu buumi xol te lépp lu jaam di mu war koo teg ci lu leer lu leer a leer a leer leer teg ko fu leer ci yow ma sahit naa illaa bi ma alim naa doy na sëkk seere sunu diggante ak yéen ci jëf ji ngeen jëf mu rëy lool te yàlla rekk tax ak jëmmi sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ramé Fall Lamp waaye ak sëriñ Mor Janjar kon nag ci loolu ci lañ leen di sant cant goog am na tàmbali waaye amul yam waay ndax jërëjëf lu gàtt la waaye Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax naan ku jëful dara doo ko dégg kon nag jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax soxna Xadi Taal noo ngi lay ziyaara yaa mbooleem njaboot ak soxna aram faal gi yépp njaboot gi nekkoon ci biir kër ga doon liggéeyal yàlla ci way jur yooya ci loola la nu dugg di ziar seeni njaboot di ziar soxna Ana Diop mi nga xam ne mooy sunu way jur ak mboole seen ay bokkam yépp ay doomi baayam ñépp wuy si nañ ko tamit fii ci kayaar ak bitib Kayar si biir loolu la sant ñooñu ñépp cant goog am na tàmbaliwaay waaye amul yem waay ndax kat lii nu taxawal tey jii baas timnu siis yu baree baree baree bare nekk fi ku ne ñëw du bàyyi isma rek ko man du moog ñaar wala ñett ñi mu àndal rek ñoo ko man woote yomb na waaye kat nit ñi wuy si la loola moo jafe te wuy si ngeen ma maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal yàlla te wuy si ki kat xam naa ne jàpp leen jàpp leen ci jàpp leen ni jëmmi bàyyi isma ja rek ngeen wuy ji waaye comme ci doon ko ne fa nga jóge lu muy sori sori mbaa la muy jegeen jegeen jegeen da ngaa jàpp ne Serigne Mor Janjar ngay wuy ji Cheikh Rafal ngay wuy ji Serigne Touba ngay wuy ji loola moo tax comme ci doon ko foo mën a jógee ci lu mu sori sori loo jànkante ci coona yëgoo ko ngir ñooñi ndax ñoo kat ku war a jëm ci ñoom du yëg coona bànneex rek nga yëg kon yàlla yàlla doole leen tawfeex doole leen dimbal doole leen sutura bu baax a baax ci barke Serigne Touba Kayar nag noo ngi sant ñëpp ci njiital Serigne alindooy Ndoye maire mi fi jóge léegi di maire bi di monsieur le maire Gass noo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla noo noonee la ñuy santee monsieur le maire Alsane Ndoye yónnee na fi ak mboole seen comité yëpp Ablaye tudd na ko. lim na ko ñaanal maanaam euh, leeral na ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñii nga xam nag yàlla dogal na ñoom la ñu tuddee woon bis bi ñu bokk ci ñene ko marraine ginnaaw parrain yi ku ci mel ni Saliou mbay ca Bayax di sunu xarit di sunu wëllëre di sunu lépp wax dëgg yàlla mu taxawee bis bi ànd kook ñun ci biir ak ci ñoo ngi koy sant noo ngi koy gërëm noo ngi koy ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala kazaaka soxna yii nga xam ne yàlla dogal na ñoom danoo doon ay soxna bokk ci euh, kuréel gi ñuy tundee tuddee fondation sopp Serigne Saliou Mbacké mu doon kuréel gu yaatu goo xam ne ñi ngi ci àddina fépp waaye ñoom ñi nu féetéer fii ànd ak ñoom dëkkandoog ñoom Kayar dëkkin wu rafet bokk ak ñoom di ay taalibey sëriñ Touba waaye tollook ñoom pas-pas mu biir na nu nàññ ne lu nu yitteel ci Serigne Touba moo leen yitteel loolu moo waral ñu yëkk bis bii kat dara jaalee leen ko ñu taxaw ci taxawaay yu am solo ci biir ak ci biti ñoo ngi leen di sant ci ci ci ci kàddu jërëjëf ci kàddu njaboot gi yëpp cant goo xam ne daal am na tàmbaliwaay waaye amul yem waay ci njiital sëriñ si ngar ma ca nekk ca bopp góor yàlla ya waaye ci soxna yi soxna ndaag mi teewoon sunu kanam léegi ak ñamu àndal ñëpp soxna na koy jël ak ña ànd ca biir ñëpp di ziar bu baax ak sant kuréel gii nga xam ne waxoon naa ko daaw du ma tay ci di ko wax muy soldaar yi maam Cheikh Rañe Fall lamp babil muridin yi nekk fii ti Kayaar kanzul maqaamaati fi dunya wal axir ñoo ngi leen di sant cant goog am na tàmbali waay waaye amul ndax kat maanaam képp ku sañoon su wote bés su geesoo dina gis ñu ko taxawul mbaa ñu koy jàppale ndax man li serigne Saliou wax legi man day xëccoo ab donga bëgguma ab donga utuma ni talibé utuma daraja utuma dara dama bëgg a ut ëllëg la Cheikh Rafal waxon ni ëlëk day dom billahi barke sëñ Bamba xaw bari talibé dina jariñ am déet waye amuk talibé dina jariñ man ak talibé lay wër mom lay ut ci la fas yéenee dund ci la fas fatou utuma daraja utumay taalibe bëgguma lenn lu dul Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Rafal mi ma teg sama kanam mu sori lool ma takk sama saak dox dem te mal ko nag te xam ne dinaa yegg fii laa nekk kon nag comme ci doon ko ne lum ci doon lu ne ak lu waaye mën a dégg nanga xam ne ñun ay taalibe Sëriñ Tuubaa lan Cheikh Rafal gëm Sëriñ Mor Ja lool muy sunu buntu ci kër Cheikh Rafal lamp ñii nga xam ne ñoom la ñu àndal di liggéeyal yàlla ñu jël ma teg ma seen kanam def ma jëwrin du ma sëriñ jëwrin laa seen jëwrin laa man ak ñoom ñoo yem di ay taalibu bokk lu nu bëgg te maam làmp ndooy nekk ca bopp ba ak mboole seen ñi àndal ñi ne fii ci réew mi di Sénégal ak ñane bitim réew ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ndax kat man moom damaa tàyyeelut te fasumaa yéenee yokkat te ñaanuma yàlla benn sama samay kilifa yii dama gis ci lenn lu may tere kon ñoom ñoo ñii ma àndal damay bëgg ëllëg nag loolu ma gis lu ne gis leen ca ñoo ngi leen maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci njiital sëriñ Lamp Ndoy ndax la ma daan wax damaa naqaree àndal lool ñoom ñëpp comme ci doon ko ne man woowuma kenn ni ko kaay jébbalu ci man woowuma kenn kaay do kaay ma doon sa jëwrin woowuma kenn ni ko kaanu ànd liggéeyal sëriñ Touba damaa takk sama sab ba mu dëgër sëriñ Saaliw gàddu ko teg sama bopp sol dàll yu baax takk der gu dëgër a dëgër xam dëkk ba fa mu ne ma waaxu di dem ñoom ñu dab ma nag ne danoo am pas-pasu ànd ak yow ci sa tukki bii loolee nag ngeen jaayante woon ak man ma jaayante ak sëriñ Moodu Ami Sey Dia loolee du dañ mukk sama digganteeg yéen maa ngi feddale te di leen soññ lii nu bokk muy màggalum njar awma lu dul màggalum njar gi awma lu ko ëpp lépp lu ma yaakaar addina ak àllaaxira di ci dimbali képp ku ma yàlla booleel màggalum njar gi ci laa ko yaakaar maa ngi ciy woo ñi ma yàlla booleel ñëpp di ñi ci àddina fii fii nu nekk euh, de Sénégal ak ña ci àllaaxira ñëpp màggal gii daal ni ko sëriñ bi waxee amoon lu ko ëpp ñun waa kër sëriñ Mor Dia waaye man mii nag maa ci rawati ndax damaa jàpp ne luy dem yar lu ne ci mboolem bunti kër sëriñ Mor yi man maa ko fa war a def man Isma Dia kon nag loola maa ngi leen ciy soññ baax làmp Fall ak mboolem ña nekk Europe di dégg sama kàddu ñëpp di leen wax ne màggal gaa ngi ñëw na na na jar ñu miraas suñu bopp bu nanu miraas suñu bopp def ko ci bisub Serigne Mor Dia bi xam ne lu waay am bis bii moo moo sagal waa Jandeer bis bii moo moo sauvé waa Jandeer bis bii si la waa Jandeer amee li nu bëgg àddina te si la ñuy am li ñuy yaakaar àllaaxira Cheikh Mor Dia Njar moom la suñu borom dénk njare ñal wala ruuy sowu jant la dalee làmp ba ca ngor boppam ba ca ndar Cheikh Rafal moo ko wax ëllëg ruu gu fi texe bu mu ci doon gone dalay neex rek jamu texe waye gu fi texe it gu fi texe de yow lay soob jamu texe de ambassadeur la mom Serigne Mor fi ci tundu wi lol nak ku mu neex ak ku mu naqari mooy li am da na wax nan nag képp koo xam ne du ma sëb sëriñ bi laay doom barkeb Seex Ibra Faal fexee la wóllëranteeg sama njaboot wàññiwul dara serigne Moussa ki dafa labir dani bi lay dom néew ma kenn kay jébul mbabul jébul waye kuma dut dul serigne bi lay dom barke Seex Ibra Faal fexee la wóllërante ak sama njabot lolou wàññiwul dara moy li wax yar def jàpp ma ma gën gënal leen seen lépp ñu def ma seeni soppi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi lu mu woote kenn du des fu ma tasee ñoom ñuy jël seen lépp di ma jox ngir jëmmi sëñ Mor Dia Njar sëñ Mor ja am na fay ñi may wut bor dafa amuk fay waaye nag maa ngi leen di wax ne bis bii jaayante naa ak Serigne Touba ak Cheikh Rafal ak Serigne Mor Dia loo xam ne billaay barke Cheikh Rafal barkeb Cheikh Mor Dia Njar barkeb Serigne Maam Mor ku fi jógee ku ne soo delloo dinga gis ak yokkute te di nga ci teg sa bët di nga ci sa jëmm ku fi ñëw moom leer na wa naññ lu war a ku ku ku ñëwut ku ronwut baas bii loolu moom man Isma Jamaa ko jël engagement personnellement waaw samay engagement personnellement la diisuma ko kenn sësuma ko ci kenn waxuma ko kenn dama ne ku ñëw ci bis bii rawatina ku ku ronu baas bii billaay barke Cheikh Rafal ëllëg jëm ëllëg ëllëg jëm ëllëg laa ni di ko yëg ci sa jëm di nga ko gis barke Cheikh Rafal daanu mab jël de déedéet jërëjëf Njaay amin daanu mab jël de daanu ma jël laa ni ndax danoo gaaw ci kat sëñ bi daa daanu daa aalu lam doon wax est-ce que tàqali sagon ak sagoom déedéet déedéet fii ma toll ci bis bii ak maanaam samaam moom leen dénk ruu yi te ñii taxaw si biti nii damaa bëgg lii sëñ bi wax ngeen dugg ci kon ngir yàlla sobe leen seen bopp ngeen dugg si baas bi sobe leen seen bopp sëñ Mor ja bëgg fee bàyyi kenn ba bëgg fee bàyyi kenn waaw waaw dugg nañ si biir waay bisimilah. su ko defee ñoo ngi sant noo ngi gërëm ñoo ngi ñaan yàlla sëñ Moussa lii mu wax dëgg la de dama ne ku ñëw ci bis bi rawatina ñi roonu baas bi wax ju leer laa wax sëñ Moussa nag da koo dégg waaw góor da nga di Baay Fall waaw góor ja yàlla na yàlla dolli la tawféex monsieur Mamadou Lay Pastef ñoo ngi koy sant. di ko beral ak cant bu baax ndax wax dëgg yàlla ku taxaw bis bi ak bis yi fiy jaar yépp nag ci ñun wala ci ñeneen di sant mboolem jàngkat yépp di ko teg nag ci loxol sëriñ Amsatu ak saa mii ndax kat ah mbokk koo gis nag dina am xarit waaye moom day kenn ci man Amsatu noo ngi sant jàngkat yépp ñi dëkk ci dëkk bi ak ñi woon di ko teg ca loxo nga jàllaleen na ko ñëpp sëriñ Saliou sant nan bu baax gërëm na sëriñ Cheikh Ndiaye jërëjëf waa kër Baye Niass la kooku toog sa wet waa kër Baye Niass la Ndiaye jërëjëf yàlla na yàlla dolli la tawféex sëriñ bi sant nan bu waax yàlla na yàlla féq saw fan yal na yàlla dolli la sutura fa nga bëgg a yëgale liggéey bi yàlla na nga koo fay yeggale ndax kat ja ku yokkut yaa wàññi dama ne ku yokkut yaa wàññi sëñ Abdou bëggoon na lii mënu koo am sëñ Mamour bëggoon na ko mënu koo am ci ndigal li la sëriñ Mouhamadou Dia ami say yàlla na fi gën yàgg te wér liigal li ma la jox nga ànd ko ñun ay mën naa ni ci la feeñ kon nag gàccaa ngalaamaa ja ku yokku daawaaññi yàlla na saw fan mel ni doj yaag sarak ju baax jee sañ Modou ja ak mboolem njabootu soxna Aram Fall gépp maa ngi sant ñépp nag soxna na koy jóg jóge ba Touba. nag soxna Daba Fall ak soxna Yaay Fall ak ñépp fu waaye mën a jóge gis naa la yaa ngi ca biir cant ga bàjjen jërëjëf sagal nganu sagal nganu sagal nganu fii yaa fii dereeti Serigne Mor ja yaa bokk ak sunu baay benn baay muy Serigne Mor ja noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm noo lay ñaanal yàlla jarusloowu nu benn yoon rusloo woonu benn yoon sagal nga yaa ngi ñuy sagal yaa ngi ñuy teral yaa ngi ñuy taxaw yàlla na saw fan gën gudd ci barke Cheikh Rafal sama cant nag maa yi koy ci ñii nga xam ne mënta ñàkk bëggun ko bàjjen xattal tudd naa ko sant naa ko ñaanal naa ko moo nekk ci bopp njabootu soxna Aram Fall yépp waaye cant gii day jëm ci ñii nga xam ne ñoom bëggun ko waaye nag mënta ñàkk man ma wax ko ndax kat Euh, képp ku nu defal lu baax fexeel mu yegg suuf rek maanaam képp ku la defal lu baax nga ne ci jomm di ko gis boole di ko yëg di ko dund ak ña la ko defal soo ko séeréwul ci kanamu ay ay ay gor wala ay julliti yàlla ak taalibi yi doo as gor yow man ko defal te man damaa bëgg di as gor damaa bëgg di taalibe damaa bëgg di bàyyi faal ba keroog may faatu ñoom ñii sëriñ bi maa ngi la koy seereel bis bii dan maa jox daraja ji mën naa ne ñawal ma solal ma teg ma fii nit ñi di ñëw di ma ziyaar waaye lu jàkk ci bis bi mbaa lu ci nuuru lu jàkk barke Seex Rafal do isma ja ñoom ñii la te sëriñ Basiiru mii seen kilifa nekk ca bopp ba ànd ak sëñ Murtala ak Baye Laat ak Ablaye Seck ak ñoom sëñ làmp ñooñu ma doon tudd ñépp ba ci maam may saak ñoom yàgg ñëpp ci biir ñoom ñii la man bañ naa ko ba bis bi aw ma ci xalaat sëriñ bi aw ma ci lu may dogal aw ma ci lu may wax aw ma ci lu naan ma lu ma naan nan ma ko defalee nangam mbaa nan ko defee nangam déedéet ñoom ñooy xalaat ñooy jëf ñooy wax ñooy doxi ñooy jànkantoy coono yi lépp ñoo koy def su ma ñëwee ñu ne ma dara jaajaangoo kon nag man su leen santut ci seen kanam man duma as gor ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal waaye di leen kalaameeg Seex Ibra Faal naa ci ay toyuwa tolluwaay yu bari ci sama biiri kàddu waaye fu ma toll rek dinaa mujj daal di wàccaat li ma bëgg a wax mu nekk sama dënn moo tax maa ngi leen di sant cant goog am na tàmbale waaye waaye amul yam waay cant goo xam ne ci biir la ak ci bit dem dama tok sama néegam yàgg guddi na une heure du matin waxtu wi presque xalé bu ndaw kayar la dekk xamna duggu na ci kër gi ñew ci peron bi gis sama lampe nek di tak mu daal di feug mané wa señ bay kan moy feug heure bi bobu man naa dama torox toroxlaayu bi ma tijjee bi yeral sama bop moy abtu tank mu jox ma adé ju bari ni mako barkelo ci sa jëm ci bis bi ay xale di jël ay leetar di dem di jënd doo leen ko jox ñu ciy def ay adde bind seen tur di ñëw di la ko jox foo leen romb ñuy wax ci yow loo xam ni seenu mbaax rekk la ak seen jikko ju rafet ak seen xol bu sell di ko seere ci yow mu biir na lu nañ ne lii du sa daraja du sa judd du sa njàmbaar ndax bi ma juddoog léegi lan laa fi dama fay liggéeyal yàlla lu ma mën a may li ma am man mënuma ko mënuma ko di mënuma ko su ko defee kon sëriñ bi moom daal dañ koy tënk li ci des lépp dañ koy mottalee rek ak ñaan li ci des lépp ak ñaan rek lañ koy mottalee sëñ Modou Baye Fall cant googu ma tudd soldaar yi ak ak fondation sa loxo laa koy teg ndax jàmbaara ngoog sëñ Baye mii da koy xool ba mu yàgg moom ma jëmm ji jàmbaar la ma ne ko lu baax la bëgg da di as gor day ab taalibe ab Baye Fall la sax nag man moom su ma dee séeréer nit ku man di doon su ma nee ab Baye Fall la yegg naa ca yem sësukaay ba yegg naa sëñ Modou ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yow kuréel yépp si ngar bàyyiwun kenn di ñaan suñu borom doon leen tawféex soxna Atta noo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax ak mbooleem soxna yi nu àndal yépp moom mi nekk seen bopp bi si bopp ba ak soxna Ndey Coy ak soxna Xadi euh, mii ñoom ñoo coordonné soxna yépp ak soxna Ndeela Jonn taxaw taxawaay seen taxawaay yu rafet yi bëggun dara manqué bëggun dala laatu bëggun lenn nuru di nuru nuru lu ñaaw tax ba bis bi jag ndax bis bi su jagee kat soxna yee kon soxna atta noo ngi teg soxna euh, cant googu ci sa loxo nga jàllale ko mboolem euh, soxna yëpp yoon wi nag li ma wax léegi xaw a dee Cheikh Rafal daana wax ne dee du fi maye dara xaw a dee dee ba ni wet moo fi maye dara xaw a dee du fi maye dara dee ba ni wett moo fi maye dara fii nag ku bëgg ànd ak Baye yi da ngay fas yéene di Baye Fall mokk rumbax ndooy népp di taalibe tëddee yi ñëpp ñëw dal sa kaw yal yàlla doon leen sutura barke Cheikh Rahim Fall Lamp di jël ak cant jëmee ko sëñ maa ngi jégalu de sëriñ bi daa di rek daa yaatu mbir mee yaatu nday sant te ñëpp gis ci seen bopp ma yëg ci ñëpp it nag sëñ Moussa noo ngi leen di sant noo ngi lay sant bu baax ja di ñaan sunu borom dolli la tawféex dooli la sutura ak i xéewal ndax bis bii ba nu ko dooree ba léegi amul lenn loo xam ne machine da koy bind ci nii yittewoo ñu koy uti faneen ndere da ngay taxaw ne maay def lépp soo noppee soo ma ñaanalee sax doy na ma da ngaa gore sëñ moor sëñ moor sëñ ngóor ja mi nga yaakaar sama mag la ñu bokk benn baay suñuy baay bokk baay nga jàppe man na nga jàppe sëriñ ngóor sëb sëriñ di sa wasila noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm noo ngi lay ñaanal asgor dëgg nga yàlla na yàlla yi la tawféex xibaar acte yàlla na dem a dem bay ay télé international ci monde bi yépp nag maa ngi koy ñaan Cheikh Mor Janjar te man na ko de te daa man waayam nag jàppal te dox dem man Mansoor jërëjëf Cayar 24 ci njiital aboo waaye yow lanu min yow lanu xam yow lan jaxasool yaay dem fépp nag noo ngi ñaan sun borom taxawu la doole la tawfeex doole la suto daf may wax ne ma man yaay sama sëriñ dama laa sopp te yàlla tax maa ngi ñaan sunu borom doole la tawfeex sopp ma de giñ ñaa ci Seex Rafal ndam rek la ci ku ma sopp di jëlee yàlla na yàlla taxawu la te defal la ndimbal tele bi suñu borom def euh, maanaam euh, seen télé bii mu wër àddina wër wërngal képp maa ngi la koy ñaanal yàlla na nga mucc nag yow falu te dootoo faliku faw bàyyi sëñ Mbay Jaw borom bu TV noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm noo ngi lay ñaanal soo gisee ñii ma leen di sant kenn par kenn dafa am loolu ñu bari dañ ko man te duñ ko def maanaam mbir nag ki ko war a def soo ko defut ki maanaam maanaam ñu baree bari wolof dañuy wax ni àll jërtam nawee ak matt ñu ne ah jar na ko ndax àll toll na ni moom te amul ak mat dafay am lool man duma tàyyi ci jël sama temps ngir sante leen ko ndax dama cee waroon a financé lu bari fay ci lu bari waaye ngeen xam ne bis bii nag bisum màjjal la bisum màjjal la jëm ca bis ba nu def dara ñun bis ba tax ñuy ñun ngeen jël seen yëpp yitt yëpp joyal ko ci sañ Mbay yow jëf site internet moyen bu TV yàlla na dem bay ay télé ci international bi yépp comme ni ñu ko ñaanalee sëñ Mansour ak sañ sëñ Moussa kazaka Jazbul Murid TV Jazbul Murid Bamba ci xol ak sëriñ Ndonga Fall ak ñi àndal yépp seen personnel ca euh, sëriñ Alim Barandim ak sañ Mamour Ndaw nekk ca booba di seen ay jëwrin ñoom jamono bu ne ñu bëgg a ñëw waaye bareen ji fi ne nii ña nga Europe di géel Seera Fall yàlla na leen fa yàlla dolli ndam ci barke Cheikh Rahim Fall noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp noo ngi ñaanal ñëpp waaye Baay Faal yi dañoo wax na nag fi ne cant gi day wéy sëriñ bi dina ñaan yeewe ñi jëm ci barab bi sori bitib dëkk bi waaye ku mën a toog nag nga xaar toog cant gi day doog di tàmbali sëriñ bi li nu bëgg nag mooy aaji yépp faju màggal gee ñu jëm lanu fa na siir lépp sëriñ Mor ja defal nu ko ndax kat man biir na ma nàññ ni li ne suñuy xol lu ko raw moo ne sa xol loolu moom leer na ma man man moom loolu leer na ma naññi te sëñ ab bu sa jax mi nga wuutu yor ab liggéeyam mus na maa dégg ciw làmmiñam dafa doon koo xam ne màggalu njar lu ko waaye ziyaaree da koy joxewaat ba mu jeex tàkk am ku ñëw di kaas loolu mu ne ka lii kat wax dëgg yàlla man su ma sañoon bunti kër sëñ Mor Dieye yëpp comme ci doon ku ne moo xam sama mag yi ak sama rakk yi maa la yeewalu nag waaye billaay barke seera yéeneem jooju saa dina ko mottali waaw saa borom dina ko mottali bu baax ndax xam na li li nga yéene loola nag ñaanalal donga yi ñaanal soppe yi ñaanal wëllëre yi ñaanal ñëpp dëkk bi bàyyiwun kenn nag fu waaye man a ne nanga nga ñaanal ñëpp xéewal yi dotti ko wér gi ñëw ak ñàkk dem wére di dem faaw tawfeex di fi sax rek nag géej gii na lawet doomu te bari xéewal donte nag fan yi am na ñu may woo di ma sant lool na ah sa bis bi day daa mel ni wàccaawee man leen sëñ Mor ja day mi ngi noonu waaye nag ñii leen ko bëggee mu faw xa ba keroog màggalu njarga waaye te nangu ko cee def nag de nan ko ci nangoo def kuy wor sëñ Mor ja doo jëlee dara ci géej sëñ Mor ja laa ne ku koy wor mbaa ku ko nam ma wor mbaa mu wóor na la naññ ne soo demee ci moom mbaa ak njabootam mbaa feebaram su la ñaanalee la nga bëgg doog maanam doo delloowaat saw ñàq ci ab liggéeyam barke Cheikh Rafal géej gii da ngay sonn waaye doo am tus sën bi loolu moom maa ko wax hmm? su ko defee noo ngi lay kalaame nga ñaan cant gi ñu daal di wéy xam naa ci cant cant yi may cant su ma ko toppee ba fajar du fi jóg sama xolo sedd waaye nag wa nahnu aqrabu ilayhi min xablil waridi suñ borom mi nga xam ne moo nu gën a jege suñ buumi xol xam na lépp yaa bari loo koy wax nan góorlu ci ak taalibe ñu ndaw ñi wormaalante soppante te yàlla tax bëggante ku ne li nga yéene sa moro sa bopp nga yéene ko sa morom nu topp way jur li ma bëggoon a wax suñ xal la bayax moo ma ci jaaral way jur yi nanu farlu ci ñoom ab sëriñ kat kii mooy sama sëriñ moom laa yaakaar addina ak alaaxira tegoo sa baay fenn tegoo sa yaay fenn mbaa sa sa xalifa baay di sa mag nekk fi tegoo ko fenn barke Cheikh Rayon Fall lamb soo ne dinga am ngërëm ca ca sëñ ba nga jébal yi du dëgg man Isma Dia maa ko wax kon nag sëriñ bi jërëjëf sëriñ Modou jërëjëf yàlla na yàlla dolli la tawféex yàlla na yàlla feq saw fan yàlla yàlla dolli la sutura waaye Jazbul Murid bin ñëwee fii naa ma sa kilifa gi da leen bëgg du wax man leen du ñu dem ca moom mu wax man leen du wax ñun ma lu tax man leen mëniwut wax ci mbooloo ndax nii ko sunu nii mu mel ni ni la ko sunu borom bindee ak oyof ci la ko ñëpp xam dana koy gis sax jàpp ne man maay kilifaam yàlla na saw fan gudd barki Seex Ibrahima Fall am jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon euh, Baye Fall Baye Fall ña nga waa góor sëñ bi nee na sant na la baax euh, moom say rajo yow daa neex ndax daa am ay daan cuunaay yooyu def ci suuf waaw yow loola neex defal defal la neex ba kenn laal la yow waaw defal la neex yaa tay Baye ña boo sikkaree mu neex boo takkee rajo mu neex